asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ñi ma fi fekk di nuyu sama maman maa ngi tudd Birane Mbaye nekk responsable des jeunes de l'APR tey ma ñëwoon seeti sama maman yi ci weeru koor bi di wax ni maa ngi leen di baalu àq di leen baalu àq yéen ñëpp ndax tey jii li ma fi yebal mooy Ibrahima Wade dama fi yebal maa ngi ànd ak Mounina Wade magam tey ñu ñëwoon indil ko lii mu jàppale famille seen journée bi ngeen di waajal waxoon na ma sax ba ñuy ñëwee ba fa ma ni jëru ngeen koy filme ndax dafa am loo xamante boo koy def ngir yàlla tax jëru ngay filmer moom looloo tax insisté man waaye Seynabou moo ma ne nit bu defee lu baax dañ dañ koy wax waaw di remercier tamit Seynabou Ndiéguène ndax lii nga organiser yombul tey ji dajale femme yi ngeen nekk femme de bennoo ngir liggéey ngir président de la république yombul kon dama leen di ñaanal seen ànd bii ngeen ànd yàlla bu ci cat dugg yàlla ngeen ci liggéey bandam bi ngeen ci bëgg ngeen am ko ci di leen wax ni Ibrahima nee na jàpp leen ni mu ngi seen ginnaaw di leen taxaw ci loo leen xewle ndax loolu moo ko war ndax nee na tey jii président li mu yor président moo ko jox kon mënul lu dul boo leen xewlee mu taxawu leen yéen jigéenam yi nee na tey mi lii mu leen jox xeeb na ko bëggoon na bu ëllëgee bu fiy ñëwaat mu wàcce lu ëpp lii loolu rek la ma waxoon kàddu yi naa ko gàttal waxoon na ma daal bul filmer bul def dara waaye nañ ko gàttal loolu daal la moo amoon lu ma ciy wax rek. maa ngi nuyu ñi fi taxaw ñëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ biraan di ci teg sunu sœur Mounina na di leen nuyu bu baax di kontaan ci yónni bi leen sunu frère Ibrahima Wade di yónni ci jàppale bi ñuy jàppale jàppale si sunu journée la première journée solidarité et partage bi ñuy def ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax macha allah sunu frère la nekk ci zone bi bu ñu amee journée dem seeti ko mu ñëw nee ñu don bu mel nii dañ koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may déwén bu ñu fekkee waatee bés bi ci sa kattanu yàlla yàlla may ko lu ëpp lii mu indil ko ndax domp sax ci sot la bokk. su ko neexoon toog fa mu toog bu jour ba mu solo ànd ak délégation new mais bañ ay jigéenam am defet moo tax ma yónnee ñu lii ñu ngi koy ñaanal yàlla ci barke Nabil Moustapha yàlla na man déwén lu ëpp lu man ren ñu ngi leen di gërëm bu baax biraan yow tam comme ni nga ko waxee rek wax dëgg yàlla teraanga bët la bët a tax ñu sàkk ko te bu ko indee fii naw na ko lool mais euh, ñun xeeb na ko lool mais ñun naw nañ ko bu baax a baax a baax yàlla na yàlla fay ko ci barke Nabil Moustapha. defal rek sa bopp nga defal Ibrahima soo sodee tudd Ibrahima sant Wade sotaroo nekk Makkatal Mukarram te ñëpp ak ñee ngay umra ñee ngay waaj aj bi jeeg ju baax ji di dégg lislaam bokk ci APR di wuyoo Macky Sall di njabootu Macky Sall ndax tey fi kenn du wax APR bon benn bokk yaakaar la ne wax su ngeen xoolee kanam yi tey jii astundoo ya ngi taxaw su ma lemee damay juum waane képp ku taxaw fii soo xëyee nga dëpp sa jë tudd yàlla julli ci yàlla kon lii nga xam ne ñoo ko mën muy loolu ni dañuy waa Cees gi képp ku fi nekk ñu joxe traanga joo xam ne jëm ci Seydina Ahmed ña ko yelloo dañ ñu ko jox Ibrahima ba nga def lu baax ca Ablaye Wade ga nekk ñu nekk ak sa sœur bu nekk fii keti yi ma Wade nekk ci hôpital régional bii cas social bi fi am Dieynaba soo ñëwee moo koy fay mu ni na éponger lépp ndax lan solidarité mbir mi nekk seen diggante ak seen ba ak suñu diggante ak ñun seen papa la ndax Olof Ndiaye ne relation personnelle bi moo indi suñ ko seqal woon bokk nekk ay bokk doon daje nii kon lii mu fi def yàlla na ko yàlla fulandil ca liggéeyam ci réew bii mu nekk yàlla dafa ko jàmm defal ñu ko xeewal yéen ñi am initiative jigéen ñi taxaw tamit na yàlla dégg seen seen yéene yàlla na yàlla taxaw ci yéen ba déwén kenn du manqué lii de mbas ma dugg ci suñu biir yàlla nañ ko déggandoo ñun ñëpp te bañ ko gis jërëjëf Wade Kasa yàlla na la yàlla fay bàyyi la sa fonction. jërëjëf Adja Seynabou Mar ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa taxawaay. di rafetlu kàddu yooyu nga yëkkati ci Ibrahima wàdd sunu càmmiñ waaye Ibrahima su defee lii aussi du nu jaaxal ndax tàmm na ko yàgg na koo def ci Thiès yàgg na koo def fii ci terrain politique bi yàgg na koo def feneen fu dul politique donc loolu jikkoom la may gërëm sëram bi ko indi tey di Adja euh, Munina Munina Wade Munina ñoo ngi moom Thiès ci social ñoo moom ci hôpital bi ñoo ngi ñoom ci difficulté santé femme mu di ci taxaw di ci def lu mu man lii buñ ko yabalee mu indi ko ñun xam nañ ne daf ciy sawar daf ciy am kontante mais je tiens à préciser une chose li ñuy organiser tey c'est pas Seynabou qui organise c'est la majorité présidentielle des femmes Benno Bokk Yaakaar du département qui organise dama bëgg mu leer jigéen ñëpp ñoo ko bokk di ko organiser ndoo ñoo àndoon dem ci autorités yi di ko sàkku kon tey su ñëwee war na leer addina que jigéen ñi ñëpp joxante loxo ànd ngir unité ngir mën a dimbali son excellence le président de la république ci mbas mi ñu jóge mu am ay impacté mu am foo xam ne mënu faa touché loolu moo tax ñu organiser lii woo sunu responsable yi kenn ku ci nekk dugal ci loxoom pour que ñu dimbali ñi nga xam ne ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah gal ba tax mu wàccee ci alquran ak bari ay nganeel ci guddi yeeg bëccëg yi sahru ramadan sahrun mubarakun sahru siyamin sahru ramadan loo ci jëf borom bi ful ko fay la ko ngir ga ramadan na ausbillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim laa hawla wala quwata illa billahi alil azim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tubarkalla macha allah bu ngeen déggee turu yàlla yooyu jib ngeen dégg xaside yooyu jib ngeen xam ne am na lu xew li xew nag tubarkalla macha allah mooy le premier bis bi nga xamante ni bii femme Benno Bokk Yaakaar yi ñoo koy def muy bis boo xamante ni bii li ciy jublu mooy dimbalee ak jàppalante ak def te yàlla tax ci weeru ramadan mubarak mii nga xamante ni bii loo ci def sunu borom fulal la ko loolu nag moo tax ñu yëkkati suñu kàddu kan nu yabal président Moulay Diop kan mooy président Mané Diop nga xamante ne bii mooy jàppale président Macky Sall nekk fii ci zone nord waaye tubaarkàlla macha allah binu nu dikkee fekk na fi boppam xaritam jigéenam muy kan Adjaratou Seynabou Ndiéguène mi nga xamante ne bii tubaarkàlla macha allah mooy puso bi nga xamante ne bii lépp loo mu nekk mooy lu baax mooy lu rafet mooy lu jëmale askan wi kanam waaye luy jëmale parti bi kanam comme femme Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne bii ñoo organiser li tubaarkàlla seen góor seen xarit seen càmmiñ président Mané Diop teraanga joo xamante ne bii tubaarkàlla macha allah indil leen ko ni leen li ngeen nekk nekkale naa leen ci li ngeen jàpp jàppale naa leen ci mbalay nag mooy taalibe Serigne Cheikh Akim Mbakke Serigne Cheikh Akim moom Serigne Abdoul Akim Serigne Abdoul Akim moom Serigne Basiru Serigne Basiru moom Xaadim Rasool boo nee nag Xaadim Rasool ni Serigne Basiru di nga tudd jàmbaari lislaam ji nga xamante ne bii moo jëkk a jël def ko ci réew mi mooy kan ah xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Mbakke Basir waaye nag ñu ngi yàlla Serigne Koso Mbacke waaye bu ñu tuddee Serigne Koso nag dinañ tudd nag jàmbaar ji nga xamante ne bii maam El Hadj Ahmed Baro mooy maamam sëñ Abdou Razak ay baayam ajar alantine yaayam tubaarkàlla mooy kan ajar Seyna bu Ndiéguène mu baax mii nga xamante ne bii boo demee kër Serigne nga xam ne ñoom la àndal liggéey kon nag bis baa ngi noonu le premier lay doon fii nga xam mooy maire ku ma ñëw nag yal na yàlla faj sa aajo président ma lay Diop daf nga lu baax daf nga lu riche yoo dina leen ci woo waaye loolu nag moo tax nga ànd ak délégation baa ngi nii jibee ngi ci sama wet Cheikh Diop a ngi ci damee la ngi ci Kumba Wade ngi ci Asu Kase ngi ci tubarkàlla macha allah ak ñu nu ko àndal ñëpp ñu ngi ci biir ak ba ngi ci biir ñu ànd jàppale nag ki nga xam mooy sunu responsable de président Malay Diop yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla may ko wér yal na yàlla yokki xéewalam lii mu def yal na ko man ay ati ati at tubarkàlla macha allah loolu foofu la ñuy taxaw di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barkeb Sëriñ Tuuba barkeb maam Cheikh Ayma Fall bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman aza matlabul shifaa'i fi tawassilil ilallahi ta'ala ñi ngi sant ak gërëm euh, Maleye Diop responsable zone nord à Thiès man nag ma ci seede dama mbokk ak moom kër daaru minam bokk ak moom zone bokk moom sëñ mu bokk ak moom gox bi bokk ak moom Thiès gi ñu bëgg surtout plus particulièrement le développement de la zone nord ne ko ñun jigéenu mouvance présidentielle unie ndax nag soo gisee fii tey ak siège bi ni mu mel si biir ak fii nga xam ni entité yëpp yoo xam ni mouvance présidentielle ñi ngi fi ne ko ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy sant ne ko lii ñu ne guléet si moom ndax mële ba mu jógee ba léegi suba ba ngoon jot luy xëyam luy luy yitteem mooy lu développer la coalition mooy lu gën a renforcer son excellence le président de la république mooy lu améliorer le sort des Thiessois plus particulièrement les Thiessois de la zone nord ne ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ndax lii ñuy def nii rek ku defal sa bopp nga defal ndax nag président Macky ni ñuy tax ñuy jóg donc euh, jóg dem fu tànkam eggul tey ñun ñoñam ñi fi bàyyi biir Thiès ñun ñu eggaleel ko fa euh, sóob boobu ñuy sóob euh, ku ñu ci dëbbale rek xam nga ni nekk nga ci li nga président donc loolu mooy ligne directam xam ni moom ba léegi suba ba ngoon jot saay bu xëyee rek si bi euh, mbirum renforcer la majorité la nekk lii tamit action boo xam ni la bu ko waat bu ko laat ndax bis bu nekk mi ngi joxe firne mais bi ko firnelaat la ne leen ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm man mën naa nangu yëf yi ndax maa moom a bokk zone donc nee ko au nom de toutes les femmes de la majorité uni ne ko ñu ngi koy sant di ko gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammad